ñu toll réewum Guinée tàng jër li ko waral di ay élection yoo xamee ne moom lañ fa doon amal donte ne résultat yi génnagul tamit ñenn ci ay Guinéens jàpp ne li résultat yi jote wane kii di Cellou Dalein Diallo moom moo gàddu ndam li waaye mu mel ne kii di Alpha Condé mi nga xamee ne moom la doon xëccool ndam loolee gisagut lu ni mel ba na nag Guinéens yi nga xamante ne nag ñoo nekkee fii ci réewum Sénégal di génn di wane seenu naqar ci li nga xamante ne moom la Alpha nar a indi Ça fait mal. Ça fait mal quand au Sénégal, les, les, les, les communautés guinéens, il y a 3 millions, de 4 millions de Guinéens à, à territoire mal. Ça mal. Si nous on on ne parle plus de ce qu'on parle là. C'est la colère là, le, tout le monde descend à l'ambassade. Il n'y a pas autre chose. C'est la colère là. Il y a autre chose. ñun dañu bu métti lool lool lool lool lool mbette boo xamante moom doo ko mën a dindi doo mën a dem voter doo mën a xool du boo xoolee ba pare doo mën a dem voote comme lu mel ni Sénégal daanaka buñ nekkee fii nii doo am benn bureau bu buñ ubbee doo am yoon boo buggee dem voter Guinée doo mën a dem voter loolu dañoo metti lool lool te mënuñu koo dindi. fi nga xamante ni nit ñi nga xamante ni ñoo faral Cellou Dalein Diallo ñoo ñu bari si dëkk yooyu mel ni Sénégal Guinée Bissau Angola mu ne ñooñu duñu ñu woote. est-ce loolu moo waral ci coow li waaye loolu ren loolu ren incha allah duñ ko nangu bu soobee suñu borom loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba bu soobee yàlla ñun wootewuñu est-ce loolu moo tax nga gis tamit Dakar ñu def manifestation bi ci ambassade bi yu mel noonu. Pël Fuuta daa bari Sénégal loolu moo tax mu xam ay Sénégal Angola ay fu mu xam ay Guinée yi dafa bari Pël Fuuta dafa bari mu waa foofu moom. warul woote léegi xam nga lu tax mu def noonu dafa bugg a sàcc xam nga xam nga soo defee noonu kay moom instant xam nga moom fu muy bugg a jaare daa bugg a jaar uh, mu ne ay Guinée ful foo tey voté wul loolu moo tax mu wax ay instant ni na parce que mu ne su mbokkam rek moo ko voté. sëriñ bi moom jàpp ne kii di Alpha Condé dafa war a dem bàyyi leen ak seenum réew. deux mandats de Alpha ça suffit. deux mandats d'Alpha, ça suffit. Les troisième, troisième élection là, seul le gagné 100%, Alpha est de gaz. C'est ce que nous, tous les Guinéens, veulent. On ne veut pas la guerre, on veut la paix. La paix, Alpha, il laisse le pouvoir, il laisse les, les, les gagnants. Quand il laisse la paix continue. Sans ça, nous, on ne pas, on, on baisse pas les bras. Deux fois, trois fois, deux fois, mandat, ça Troisième mandat, c'est le gagné, c'est le reste des le président de la République de Guinée. Alpha n'est plus de président de la République de Guinée. Politiquement, bi baaxul tey politique Alpha Condé baaxul tey baaxul suba dañoo bëgg mu jugu si réew mi dem ut fu muy noppalu bu buggee noppalu boppam bu buggee noppalu yaramam na dem ut fu muy noppalu bëgguñ ko tey bëgguñ ko suba dañoo bëgg a liggéey suñu réew di defar suñu réew. mel nii comme Sénégal. ñenn ñi sax jàpp ne kii di Alpha Condé dafa yore réewum Guinée kumba am ndey ak kumba amul ndey sëriñ bi moom di xamle ne kii di Cellou Dalein jàll moom bu jëlee réew mii dina ko yore ci noonu ñu ko daal di bëggee. lu guerre ethnie moo gën a métti si guerre xamante ñi Peul lañu ñi Sousou ñi Malinké guerre yooyu baaxul te na bañ a créer guerre si dëkk bi ñu ne nangam la ñi nangam boo yoree réew da ngaa war a nekk présent pour tout le pour toute la population. boo ne boo nekkee séeréer waaye nekk si réew man ñii laa ñii laa faral ñii laa faral loolu du président. Cellou Dalein am nañu yaakaar ci moom wone na ko feeñ na ñëpp xam nañ ko ndax Cellou Dalein wonewul ren lay ah, jamono ji lay bugg tàmbale dugg ci état depuis jamono Sékou Touré mu ngi liggéey ci état gi nekk na premier ministre nekk na euh, ministre des travaux publics nekk na lu bari ak lu bari liggéey na lu bari am na tali yu bari Cellou moo ko liggéey ci Guinée ak pont bari Cellou moo ko liggéey loolu ñëpp xam nañ waa ay ay côté forêt liggéey na foofu lu bari ñëpp xam nañu loolu te def na dina xeewal bu bari. élection yooyu nga xam si nag doon nañ ko amal dimanche fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre ba léegi nag résultat yi génneegul waaye ak lu mën a xew ñuy xaarandi ba xam fan la wànneen di mujjee ki gëtam.